mbokku internet Ibakan TV ñoo ngi toujours ak ma Mbalax deuxième partie bi ñuy dugg ci actualité de la lit ah li xew lepp xam nañ yëg nañ ko Matar Ba wacce nañ ko poste ministre des sports bi nga xamne yag na fa lol lol lol ñu wacce ko dugal fa ba Diatara rang ma xam xamna da nga ñëw rek fekke fekke actualité bobu de lolou and nga ci wala àndoo ci. waaw Iba ci wacce bi ñu wacce Matar Ba. waaw mais mais mais mais mais c'est normal donc avant tout sax damay. Euh, damay euh, féliciter jatara moomu. waaw xam nga di ñaan yàlla xam nga yan bi oyof si kawam. waaw pour tamit sénégalais yi xam ne aussi. Mhm. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. foo warul jaar. Mhm. foo warul toog. Mhm. ilaa yow mi diini doo fa jaar. doo fa toog. yaa ngi jatara boobu toog ci ministère bi jiitu na juddoom. il faut sénégalais yi tamit di am ay réflexion di xalaat. tey euh, Matar Ba. parce que mhm. dama dégg ci yenn interview yi. mais non da nga ne c' normal yow ñëpp ne c' pas c' est anormal yow nga ne c' normal. mais pourquoi c'est anormal. lu tax normal. mais c'est normal parce que euh, tey poste ministère. waaw même poste président sax nit du fa nekk pour éternel. Hmm. il faut nit ñi. Mhm. il faut nit ñi comprendre loolu. Mhm. muy lu mu mënti doon muy lutte. aujourd'hui tey ani ani ani ani tey la. le meilleur le meilleur le meilleur ana ñoom François Bopp. waaw. Hmm. ani ani ñoom Makhtar Diop. mais ana ñu. dem nañ ñeneen ñoom ani Joseph Ndong dem na. ah mais pourquoi pas kii du dem. Hmm. kon kii dafa waroon dem. mais dafa war a dem. lu tax mu war a dem. Makhtar kii Makhtar li tax mu war a dem mooy. Uh-huh. dafa jot xam nga tey nit ñi il faut ñu bàyyi. Uh-huh. que mi ngi jël wala à une semaine de compétition wala yu demee noonu. Uh-huh. Makhtar ba compétirul. waaw yaa may dégg. compétirul mhm. footballul deful dara dañu waxante dëgg ah. yaa may dëgg mhm. li mu occupé keneen mën na ko occupé yaa may dëgg mhm. nañu bàyyi que mu euh, dafa dafa dafa tombeex coupe du monde bi dafa tombeex coupe d'Afrique bi ñu jël ko mais tey bu yaawu jaan nekkoon ministre des sports ah. dañuy jël coupe d'Afrique ku ko mënti woon doon ci moment boobu ñu ko jël dañuy jël coupe d'Afrique yaa may dëgg ne Sénégalais yi yéenante jàmm mm-hmm. yaa may dégg bàyyi parpar par par parloo bi mm-hmm. yaa may dégg mm-hmm. Sénégal senegalu Sénégalais yépp la yaa may dégg Yankhoba Diattara c'est démb Matar Ba moo fi nekkoon tey Yankhoba moo fi nekk nañ ko ñaanal yàlla Yankhoba lu tudd nañ yàlla yan bi oyof si kawam mu mën ko gérer ci bisimilahi rahmaani rahim yi continuer kax alhamdulilahi rabil alamina yaa may dégg et puis eh, eh, des sports vous ñu un ministre des sports. Mhm. waxuñu un président fédération de football ah du président fédération football. dëgg la du président fédération. CNG. Euh, mhm. yaa may dégg c' le ministre des sports. Mhm. Tay, ni mu xamant ni mu duggé ci làmb ji. xamanteex yi wala ni mu duggé ci football bi xamanté mbër yi mais lu tax duggee wu ko ci ci judo bi xamanteex judokaay lu tax wu ci karatéka yi xamante karatéka yi comme ni ko mbëri di defar. ak borom épée waaw wala mais lepp sport la wala ci basket bi xamante basket yi. Mhm. ñom ñu koy wax lu bax mhm. wala comme ni ko ñeen di waxé mhm. donc actuellement pour gàttal notre président Macky Sall. actuellement soxlawul la politique. il veut des gens compétents. pour réduire gis nga trop tard amul il n'est pas trop tard. pour bien yaa may dégg dañoo bëgg défar li dess actuellement. dañu bëgg tey président même bu ko desee sax. gars yi war nañ ko mën a soutenir mu defar Sénégal. Mhm. yaa may dégg postes yi ñuy wax. Mhm. le président il veut plus des postes politiques. Mhm. il veut des postes compétents yoo xamante ne ay nit yu compétents dañ fay nekk pour liggéey le Sénégal loolu lañ soxla. on veut pas des politiciens actuellement. di politiquer ay ay ay ay ay wala di politiquer ay. comment dire ay ay yor équipe nationale. wala li ma def ci kii bi. L'ordre def benn sa est mën na def fukk. yow Matar le koy reproché. non mais mais que ma reproche moi euh, le football et la lutte ce n'est pas seulement des disciplines il y a d'autres disciplines dans dans notre pays On il y a d'autres disciplines. y a et puis Matar il contactait seulement que les gens ils doon toujours quoi. les gens qui gueulaient toujours que il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il t'appellent pour te dire arrête, donc je te fais ça, je te, je te fais ça donc ça c'est pas l'espoir il faut être réaliste il faut être direct xamné affaire bi mer-mer. Hmm. Hmm. Euh, comme un CNG tu peux pas nga un CNG dal di fal dix personnes pour un CNG. Hmm. ndax kenn mer mais lu tax si bi fal fa dix personnes aussi. il faut pas si ku mer da ngay mujjé nek kenn du ko kenn du ko expliquer.

donc nous mu jël une discipline mhm. parce que c'est prévu pour ça. Mhm. Mhm. c'est prévu. pour que dañ la une la nangam. yow yaay wax budget nous soxla. discipline bi la discipline Nous et puis les postes d'entraîneur les compétents nous teg aussi. pour que nous devions faire des performances. donc nous moo jaadoo. mais doo Mais nous diw sama dafa bàyyil ma def ko li non yoyu taxawul taxawul senegal senegal ñepp ko bokk nag uyuma mm-hmm. kenn moomu ko mm-hmm. Sénégalais yëpp bokk senegal ah. la nañu bayyi Macky Sall fi wala Macky Sall gu wala Macky Macky Sall deful mm-hmm. dara il n'a rien fait peut-être amna ñen ñu andalon ño xamantene ay fautifs lañu comme tay man dama ay contane sax ci li tax Macky Sall amul ministre gis nga Medina bii ma dëkk benn nit rek mo fi compétent muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mo fi compétent fi Medina yaa may dégg di ñaan Macky Sall poste bi Cheikh Ba nekk. Mm-hmm. mu téel ñu ko foofu wala mu jox ko poste bu karoo parce que mi ngi tenir mm-hmm. euh, euh, notre notre quartier là. de la mm-hmm. Médina fii mu ngi koy. mais Médina léegi laa fi dugg mais Médina changé wul de. mais xarkanu kanam moom c' extraordinaire. le le maire il n' rien fait. Mm. rien du tout. dëgg la yaa may dégg surtout depuis que depuis que mu ñu gañ ñu gañe ko ci législative yi mu yaakaar ne moom moom Médina. Ah. donc il n'a rien fait. Maintenant, mhm. si Ahmed Tidiane Ba moo fi nek. waaw Il des mhm. di defal il n'est pas maire. Mhm. te maire. les gens ils ont regretté pourquoi définir comme maire am. billaay parce que la fi ni mais des fois il faut que nous la médecine la question dara mm. mais il me ak je soutenir mm. la Médina mm. pas d'autres personnes pas d'autres personnes Il y aura des moments, c'est normal mais c'est normal plus que normal même plus que normal plus que normal. il faut mm. que les gens s'arrêtent. Mm. dañu waxante de sama gars mm-hmm. ngi mm. interview. yaa may yi ngeen wax warul dem warul dem. ku warul dem amul warul dem la. Mm-hmm. tout le monde part. il faut qu'on s'arrête. yaa may dafa war a dem sa dem